kii ñaari dof la woon quoi dof bu góor ak dof bu jigéen ko dof yi dañuy dof dof dof yi dof dofuñu bu jigéen daal sàggat na quoi juutu foofu naan day boyal fourni yeeg kërti bu góor bi yeewu rek xam nga rek ak ko koddalu fajar bi rek waaye nee rek yem si xam nga ndaw si jootu mu xool xool gauche xool droite gisul kenn rek waaye saañ ko ko téel waaye maire doon dem marché yuuxu foofu yëpp yow lee tey bàyyi doonu jàmm rek dof bu jigéen na yenn seen yoon kii jàkku na ba mu pare doo leen ko bàyyi mu yeggale yow